فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتح وهب لي وارزقني بكن لنا دقياض عاجلا بالبشر مع مدد قد أقيم لدين الله أركانا يسر رجوعي لتوبى واحمني وقني أذى الورى ولد طيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من شركه بانا أجب وصل بدثلي من على سندي محمد وتهب لي فائقا بانا أجب وصل بتسليم على سندي محمد وتهب لي فائقا بانا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فطاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفت وهب لي وارزقني بكن الآن ريقي أجل عاجلا بالبشر محمد حتى أكمل دين الله أركانا يسر جوعي توبا واحمني وقني أدر وراه وتري بسم اسكانا كسما ولا أرادي ولا هو بيا مشاركين لي أجيب سليم سمين حسن علي محمد تبي فايف عن برا سبحانك رب العزة ومحمد سيدنا وحمد حمنا آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi nuyu ñëpp di di siyaare pour waaye man di déggee moo xam ca poy waxan ñu wax nii la wala poy akabir salihin wala ca wala ca ca ca ëtt yi jullit ñëpp rek boobu man fi waaye man di déggee xam naa Modou de xam naa waxtaan wi ni ngeen ko sakkoo woon mu ni ma boobee ca Ndakaaru moom moom laa siyaare ji woon seeti ko ba bañ ko kiyee ba tey mosu ma faa dem ba bëggoon a xam dëgg dëgg lu lu wundu xam naa am nay laaj gaa yi nga xam ne jëmbul seenu bu yër daa yaatuwut jëmbul mbokki daara yi nga xam ne si seenu bu yër ci diine yaatuwut wala boog ñi nga xam ne ñoom xalil mooy seenub delluwaay ak risaala te loolu xam nga dafa yàgg lool te it xam-xam bi it foofa it xam-xam de développé na ba ba gën a yaatu loolu xam naa li ma bëggoon a jëkk a wax mooy monument ba day ba ma fa demee moom dama bëgg a seet observation bi yi nga xam ne moom laa fa jëkk a am xam naa ne ku mel ne président de moom baaxoon na loolu mu def ab doxantu dem fa boo monument bi soo ko jubee dëgg yàlla taarugu dara moom de ci ñaxam fa nekk ak nangam ma fa nekk ak xëy ma noonu te ginnaaw fa la ñi ñi tubaab yi ñëpp fay ñëw jiwaab bitim réew di fa ñëw di ko xool mosomaa defar seetlu naa boo dee yëg ci escalier yu yu sore yooyu gis naa weñ gi ngay jafandu weñ nga de moom daa mel ne ma ma ngay xumaag ma ngay bënn ma ngay yàqu moom daa daa mel ne kon matoon naay gesalaat gis naa it foofa am ay ay ñax ñaxaan yoo xam ne sax na fa seetlu naa fa it ne làmp bi guddi fekk nañu fa làmp bi gis naa ne leerul de leerul làmp yi nga xam ne moom la ñu projecteur yi ñu war a jam ci monument bi gis naa ne des na gis naa boo yéegee ci ci monument bi ba ca kaw li kaw ba ca fay tolloog bopp doom ja seetlu naa ca ne ab weer la la ñu ubbi rek ubbi def ko palanteer ab reetal dafa palan nit ñi yërndoo di di di di seen Ndakaaru weer booba dañ koo teg fi suuf loolu moom gis naa ne daal jëkkut moom loolu moom dëgg yàlla damaa xamul daal xam naa mel na ne président bu fa demoonal boppam xool ko wala mu yónnee fa na ku mu wóolu man naam yooyu darañ ko ko leeral te ginnaaw ba ñu àggee maa ngi observé ndaw si nee na xaw ma fukki fukki fukki milliards ak ñeent lañ ca def ci bis bu njëkk ba xaw la wax nangam ci ren sax ren xam naa kon kon kon mooy kon ëpp na ko di wéy waaye waaye kon. fukki milliards ak ñeent buñ ko ci xasee def kon war naa mën a gën a sa jëkk nii xam naa it nag président ku mel ne moom ginnaaw président bi defoon na loolu saytu ko ndax ginnaaw moom fukki fukki milliards ak ñeent ya réew mi ko moom ñu saytu ko ba balaa balaa yàqu de- def naa fa o- observation beneen ci laaj naa guide bi ne ko waaw yéen de da ngeen ne Macky Sall da ngeen ne président Wade da ngeen ne nen ne ne ab kii la woon da- da- dafa gëmmante nu mu waati ah euh, parité ma ne ko ma ne ko ma ne ko ma ne ko Wade xanaa dafa mel ni gë- gëmul parité ndax yéen ndaw si da da- dane dane euh, góor gi téeméeri barigo la téeméeri tonne la wax bu dee euh, ndaw si doon juróom-ñaar fukki tonne bu dee doom ji doon juróom fukk ma ma ne ko xanaa kon loolu loolu xanaa kon day firndeel ne kon wàdde kon moom gëmutoon parité loolu ay ci ay observation yooyu la yi ma doon def waaw seetlu naa fa loolu seetlu naa fa ne it ne antiquité di yañ fa def bagage yi ñu fa def bagage yàgg ya am na fu fu maanaa léegi ngangu naay gañ fa def ak ne ne ne ne fi buur bi toog ak ak fi fi fi soxnaam si toog ñu ne Togo la jóge xaw ma lañ wax ñoo koy indi waaye da- damaa jàpp ne foofu nag baaxoon na esthétique yi ma fa gis de des na ndax gisuma fa esthétique suñu buur yi ku mel ne Alioune Boury Ndiaye sëy na bu gi- buñ fa andi woon andi andi fa la jor mën naa jëmmal ña ca des loolu waaw loolu. kon kon jëmu daal de dafa mel ni daal liggéey ba des na de daal mel ne des na war na ko mën a équipé waat noona ba nga xam ne da- da- dana jëmmal histoire ba am na solo nag la fa ne am- am am na solo lool maa ngi xool rek gore gore andi nañ ko fa jëmmal nañ ko fa daanaka moom boo ko xoolee rek daanaka yow mën ngaa ba- bañ a dem gore leer na ak ak ak ak colog colog mag ñaak seen nangam yi am na solo daal waaw xam naa am- am- am na so- solo lool waaye nag eh, buñ ko gënee mën a saytuwaat gën koo ma mën a yo- yokkaat d- d- dana gën lu mel- lu mel ne lu lu- lu mel ne eh, jumaay Tuubaa ji moom ci waat def defoon na ko fa xam naa dindi ko waaye xam naa ñu ñu waxtaan bi day day mel ne foofu fu la jëm sëñ diw sàngam ne woon na ma kat ñoom ñoo ñoo wax waat ba ba jëndi ko bëri sa sina waat la ma ne ko nag xam naa day jóbul ñàkk a culture bu bu yaatu la ci ci islam bi bi bi bi bi ko ci waat di di def waat sax agran ci sax doon sax gàggantikoo ci ligue mondiale islamique seen borom xam-xam ya bañ na ko dagan na soo demee Arabie Saoudite fekk fa ay état yu bëree bëri jidda état yu bëri nga fa nga xam ne état yi ci alquran lit lit tëdkaar la tëdkaar fàttali ko tey nga jël albori Nja- njaay sëy na bu defal ko ab ab ab état yi gone gi nga xam ne xamu ko su ko fekkoon fu- ca ca monument ba euh, ñu nekkat al albori di mi ngi nii mën caa jàngee lu lu bëree bëri bu dee nag sanam timsaal mooy estati boo xam ne ne li tiskaar la fàttali ko bu dee nag sanam mooy luñ teg ngir di ko jaamu nañ jël ak ak satal rek satal rek daane satal rek ji de sëñ doo ko moomoon gaa yi di ko wër di raam ak sukk ka ak a ak a ñaan ca satala ga su ko baax booba ab sanam lay doon asanamu maa wudia li yuqbal maa sunia li li yuqbal loolu mu jeex moom moom loolu doo ngay mooy kii bi nga xam ne kon moom monument moom kenn du ko jaamu salaay salaam nag moom jamonoom ñaan gaa yi nag daana tere sax kuy julli jëmee ci ab kenu waaw loolu booba la booba xiram yo booba ña nga fa ña ngi koy jaamu salaay salaam nag ragal na ne ki doon jaamu xiram démb dugg ci ci islam bu dee julli ci jumaa di jublu ci ab ab ab kenu boo yeexee xelam nekk ca ca lam doon jaamu démb wala loolu moom ko loolu ñu tuddee xikmatu ma coñitu nàngam maanaam ndigal wala tere ban xikma moo tax ñu digale ko mbaa ñu tere ko loolu loolu kon moom yaakaar naa lu lu lu lu yomb la te te kàngami ju jullit ñi demal ci xasaal yi ku ñuy wax docteur mo- mo- Mouhamad Ceemaara def na ci benn benn téere bu am solo damaa xamul a- a- al islam a- al jamaalu fi islam la ko tuddee xamati am na daal téere bu am solo la boo xamante ne ko- imam xasaali léegi kàngam yu bari la lañ wax ci loola ci ne dagan la dafa dagan loolu moom loolu moom dëgg yàlla no- ku sa xa- xam-xam yaatuwul rek yaa koy def yaay wax naan euh, monument bi euh, kii la lé- lé- léegi nag am leneen jombul soo jëloon ab istati du dugal sa néeg loo loolu moom borom xam-xam yi nee ñu nee ñu seytaane yi da- dañuy dugg ci dawkat bu da- dawkat bu bu ñuul la ñu lañ wax loolu nag yàlla bu dee ak arab dajee feeñ ak ak euh, muus mu ñuul dañ dañ dañ dañ seytaane yi dañ ci dugg loolu waaye mën naa wér na ndax boo xoolee njabarkat yi dañuy soxla woo daw- dawkat bu bu ñuul soxla ak ak euh, muus mu ñuul dañ dañ dañ dañ seytaane yi dañ ci dugg loolu waaye mën naa wér na ndax boo xoolee njabarkat yi dañuy soxla woo daw- dawkat bu bu ñuul soxla soxla woo muus mu ñuul garaba kon moom loolu kon moom mën naa ko naan lë lë lënkaloo gu am di diggante yooyu ak s- seytaane ñu ñu ñu wax nañ ne kat soo jëlee ab istati du dugal sa sa sam néeg muy ab foykaay wala yooyu seytaane yi dañ koy dañ koy solo kon moo moo taxoon ñu ñu ñuy tere maanaam léegi di di dugal ab istati ci sa sam néeg ni ne nga xam ne ab croix rek croix bu nekkee ci néeg malaaka yi ma ne duñ fa dugg waaw waaw waaye nag nag eh, a- am nañ am na ñu ñaan salaay salaam daa waxoon ne ku ku ko defar ab istati nit boo liggéeyee na la- yàlla dana la kii ba ba ba nga ba ba nga wutu ko bakkan loolu moom yaakaar naa loolu moom yaakaar naa moom ku ne xam ne ne it nag eh, mën naa bañ a demee noonu loolu moom yaakaar naa addis yooyu moom yaakaar naa daal nekkul addis yu yu yu ñu su- su- sukkandiku bu dee ci ci ci xam-xam maanaam daal istati moom. ngir fàttaliku dara la fu dal noonu noonu murid murid gi rek waaw murid gi noonu mu ñëwut sëriñ sëñ tubaa ndax sëñ tubaa da ñu ngi ko taq di si tax maanaam léegi dafa jege kon kon kon léegi déviation da yomb lool ci ci ci gaa yi teg ko seen seen néeg mujj far ñu koy raay mujj far ñu koy jaam moo tax istati moom foofu sëñ tubaa ku mel ne sëñ tubaa mu ne su ko wutal istati waaye nag bu doon tey Cheikh Omar Foutiyou Tall kooku doon ab ab ab istati boo xamante ne kat nit ñi da gone yi dañ koy xool nii maanaam léegi man ko fàttaliku loolu lu am solo la la la la lay doon bu dee nag ay doon nga am ñoom yóbbuwuñ ko ci niveau bi bi bi ñu yóbbu nuñ sëñ bi waaw. al Alburi Njaay sëy na bu ñoom la jor ñoom ñooñu nga defal leen ay istati ngir fàttaliku leen. loolu ma ma ngi alxuraan moom moom su yonent yàlla Suleymaan jinne yi dañ ko defal ay ay statue ngir ñu fàttaliku seen gars yu bàyyi te loolu lu am solo la sëñ Tuubaa mi pho- photom bi photom bi bu su amutoon nit dana ko bëgg a imaginer ba sonn te te te du am fu fu mu koy teg photo am njëriñ sa sama bàyyi dama ci waxoon ne ma photo de am njëriñ booba dama digal ne ma naa ko photo ne ne ma ah photo kat photo kat photo kat dara la li li li tax sëñ bi nangu ko dara la foofu it lu am solo sëñ bi bi problématique di dikkee ne ko dañoo bëgg la photo doone ko na na na bàyyi ba mu jóge ci jàkka ji mu ne waaw day day bañ photo bi doon neen sëñ bi taxawul day dox ndax photo bi ba ba bañ a do doon neen ma ma ma xam di ni mi ngi naa ma xaw ma sëñ kii buso maamam ja da daana tari bayit wa sëñ bi doon doon tari bi ñu koy photo maa ngi ko koy sax ci ci gëstu loolu ndax barkeeloo ko waaye gis nga sëñ bi de daa bañ jëf ji doon aada bu jógee ci jàkka ja jàkka ji seede ko muy muy dox ndax du ndax du taxaw ngeen photo buy dox nag di di di sadd bayit yi jëf ji léegi doon ak jaaw loolu nag loolu nag suñu bi am niveau la maanaam noonu noonu noonu moom maa ngi seetlu de- dem naa Italie de- de- dem ca ci Vatican naan gars yi ñi ñi ñi ñi ma àndaloon may leen may leen wax leen a'uuzu billaahi mina seytaani rajiim ndax fii mooy géttug seytaane nu ko waatee Sidi Lamine Niass mos naa wax ci wax ci ab ab dina jamono ne ne ne daa àndoon ak ay ay ay bokki taalibe nee na nee na ñu ñu ñu ñu visité ji ci Vatican nee na bi ñu bi ñu duggee rek benn taalibe kenn ci ñoom daal di yëkkati xasida yi nee ma ne ko ah lii di kiimaan la sëñ Tuubaa ñi ñi ko doon pexeel tey ñuy jooru xasida yi ci seen diggante bi xam fi ñu toll kooku lu am solo la. dem naa lecce ca Italie bisum gaaw la xaw ma dimanche ca ngoon bokki taalibe bi am dayire ci biir église bi lañ ko defee de toit bi nag toit bi nag am nañ to am nañ tolérance de ci digg église bi ca la ñuy yëkkatee xaside yi kon ko kon daal mi wax kon day mel ne kon daal moom monument bi moom lu am solo la lu am solo la xamaa nag nañ ko équipé moom des na moom des na des na moom des na ci président Abdoulaye Wade xam naa daal damaa yaakaar ne ñi ko doon taxaw ña doon taxaw liggéey ba moom ñoo des moom des na de li mën a symboliser daal ci ci culture des na gis ndaw si sax giddi ba ma ma ñoon leeral naa ñëw boo xoolee léegi góor gi dane góor gi léegi ak soxna si ak doom ji loolu mooy famille bi daal di ne boo xoolee gis ngeen góor gi daal di ta talal baramam jëmi ci kanam futur ndaw si talal baramam jëmi ci ginnaawam mu mu mu mu ne di xamal nit ñi leen kat waaye ñi ñi ngi dem waaye buñ fàtte suñ démb. oh wax di jàmbar de aw am na sax xale bi ma àndal laaj naa ko waaw waaye nag col gi lu tax jigéen ñi sol lu gàtt. maanaam làmbaay boobu xam nga lu ko waral la africaine ba bu démb ba lay wax africaine bu démb bi mooy kaw kaw ba booba ñoom yaa naa su am na ci suñu dëkk kaw ya booba ñoom booba lool nga def lu waral ñu ñu waddoo noonu ndax ña xamee yooyu su soo demee ci àll bi dégg yéeg nangam ak ca ca ca ca ca kii bi ca xaxam bi du la laal foofu nag dafa am leneen lu fa am solo yow ku jàng diini lislaam di di jàngat loo xam ne yaa ngi koy jàngate ci ci ci sa pas-pas yow. da ngay juum da ngay fekk li am nga jàngat ko laaj ko ne ko yow looy wax yow kii jigéenu africaine la ñu ne waaw. lu tax mu lim sol ni ni mel ñu ne ko moom kat ca kaw gën a dëkk kon moom bu solee lu gudd xaaxam bi sonal ko jeex na boo ko mën a naan déet islam du ko tere islam mooy la man bi ki may wax nii booba islam amagut fii moo tax nun nun daal nun daal xam naa daal xam naa daal Sénégal nag moom xam nga amu jot na moom jàng jàng amu jot gi moom ndax da xam nga daa métti de xanaa président Macky Sall kon xanaa kon na xam ne loolu daa métti de gars yi jànguñu jànguñu moom amu jot daal culture dëgg dëgg dëgg lu lu ne nga nga nga yaatal ca moom moom ci ca amuñu ko mu ne ma ba xam naa moom lu am solo la lool lool xam naa daal maa ngi ñaan président moom ma maa ngi koy ñaan daal mu dem xool ko wut commission ñu xoolal ko ko liggéey ba laaj naa ndaw si ne ko waaw yéen yéen seen seen kii bi monument bi day mi ngi furi mu ne ma ñoo ko ci jublu boronso la bu ko naaj jàppe dee day wax rek loolu moom ci gàtt na boronso bi bu dee boronso pire la su ko naaj bi jàppee day briller waaye du du furi loolu kon président kon loolu xam naa kon yàlla na ci mën a daal def ab liggéey ba ñu ba ñu defaraat ko kon daal monument ba ngoog monument ba du du lu ñuy jaamu waaye lu ñuy fàttalikoo la lu am solo la mi ngi représenté lu lu lu lu rëy mooy culture lay représenté culture na ko xam ne xam nga ko mën naa am da nga mën a ba daal ba neexu ca loola waaw kon dax naa kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu